waaw ndaje bi lu ko waral euh, lenn rek la xam nga Elton dafa nekk compagnie boo xam ni ay sénégalais ñoo ko moom di yëngatu Sénégal ñu bari nag ay clients yoo xam ni dañu tàmmu Elton bëgg Elton. E ñu am nag suñu benn programme bu ñuy woowee programme sama Elton clients yi nga xam ni dañu yore carte xam ni ñoom dañuy jënd ba pare di ñëw ci suñu station yi. et chaque année nag dañuy jéem a organiser benn tombola boo xam ni dañuy def destination Sénégal maanaam ci clients yooyu daf ci am ñuy gagné ñu visité loo leen yenn endroit yi. donc année yi passé demoon nañu Casamance euh, demoon nañ ci Petite Côte bi euh, ren ñi ngi ci île du Saloum et yeneen at yi ñëw tam bëgg nañ dem ci yeneen dëkk yi parce que tourisme dafa nekk lu am solo pour dëkk parce que tourisme rek mën na développer dëkk parce que tourisme day développer transport te ñun transport bu développer aussi sunu activité développer tourisme day développer artisanat day développer commerce même l'emploi l'emploi des jeunes aujourd'hui tourisme bi kese mën na employé jeunes yi nekk Sénégal yëpp donc c'est un secteur très très important moo tax ñun ñu choisir ko ba pare suñu clients yi tamit am ci mbégte trop parce que ñu bari ci ñoom aussi xamuñu woon yenn destination yi nga xam moom lañ leen di proposer ñu bari bu ñu waree vacances rek dañuy xalaat tukki génn Sénégal alors que fii lépp mu ngi fi waaw ñun loolu mooy suñu esprit te duñu bëgg ñëpp jàpp ci ñëpp fier ci loolu buñ ko defee rek ñeneen ñi pour ñu ñëw day yomb waaw loolu moo lool daje bu mel ni vraiment ñuy remercier partenaires yëpp di remercier aussi presse bi seen taxawaay et ñun ñëpp buñ ci jàppee rek je pense que affaire na baax voilà donc gox yi ñu jotoon choisir moo doon Petite Côte parce que foofu quand mooy destination bu gën a mag aujourd'hui Pointe Sarène ngi fii tamit ñi ngi koy xalaat euh, at yi passé dem nañu Cap dem nañu Ziguinchor euh, tey ñi ngi euh, ci les îles du Saloum et at yi di ñëw aussi yaakaar nañ mën a dem ci yeneen dëkk yu mel ni Saint-Louis et waaw bëgg nañ daal wër Sénégal bi yëpp ba lépp lu nga xam dañ ko fay wone muy taar ñu ñu wone ko wan ko suñu clients yi aussi ba pare def que nekk ay souvenirs yoo xam dootuñu ko fàtte merci monsieur Faye euh, wuy si suñu mbokku Elton ci li nga xam ne mën nañ ko tuddee euh, cëppandaw si benn lëkkaloo bu ñu lëkkaloo woon ak ñoom ci li ñu tuddee développement maanaam soqali li nga xam ne mooy secteur tourisme bi rawatina li ñuy tuddee le tourisme local mooy tourisme euh, ñiy ñëw di jóge bitim réew mu la ñu tuddee ay doxandéem mais ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi dëkk sosoo fi même bu ñu di ay doxalu mit mais fi ñu dëkk loolu moo ñu intéressé woon ndax ñun ñëpp réeré wuñu mbir ne bi nga xamee ne mooy euh, mbas mi ñëwoon na ci réew mi euh, gisoon nañ ne que le monde entier dafa nekkoon à rawatina secteur touristique bi nga xam ne booy xool ñun suñu tourisme li ëpp 70 euh, pour cent ou même plus ñu ngi koy jëlee ci touristes yi nga xam ne ñoom ñooy jógee bitim réew. léegi nag bi nga xamee ne gis nañu ne que amatuñu pexe il fallait que agence sénégalaise de promotion touristique bi nga xam ne mission yi ko nguur gi jox ak ministère du tourisme mooy jéem a xool naka lañu war a mën a wane Sénégal li nga xam ne moo fi baax ci biir réew mi ak ci bitim réew ba nga xam ne dinañu gën a mën a xëcc li nga xam ne mooy ay touristes. donc bi yàlla defee ne mënatuñu attirer ay touristes yu jóge étranger li fi desoon mooy bay ci ci sa yu tànk donc loolu moo waraloon euh, ñu def ay pexe euh, woo woo secteur euh, privé touristique bi ginnaaw bi nga xamee ne état bi nguur gi vraiment bi mu gisee ne secteur bi nërmeelu na dañ ñu jàppale secteur ak acteurs yi ci lu ëpp 75 milliards de francs de francs CFA. loolu la nguur gi dugal pour déjà pour bañ ñu ñenn ñi ñàkk seen liggéey pour bëgg aussi hôtel yi. ñu mën a defaraat seen hôtel même bu ñu amul client ba nga xam ne bu bu activité bi reprendre maanaam bu ndorteel bi ñëwee ñu mën a recevoir clients yi te mel na ni tey jii loolu loolu la ñu ñëw pour maanaam célébrer ko ndaxte euh, gis ngeen image yi sànq yi nga xam ne moom la ñu doon projeté fii euh, yi nga xam ne maanaam ci Saloum la vraiment mën nañu d'accord ñun ñëpp te salum boobu dañu ko boole ci yi nga xam ne li ñu tuddee les plus belles baies du monde les dix plus belles baies maanaam fukki euh, fukki euh, euh, fukki baies maanaam yi nga xam ne ñoo gën a rafet ci àddina bi delta du Saloum ci la bokk donc bokk na ci li nga xam ne dañ ko war a véritablement suqali comme ni ñu war a suqalee it yi nga xam ne mooy yeneen gox yi muy Casamance muy Dakar muy Ndar muy Kédougou muy Tambacounda muy biir Thiès et cetera et cetera muy Ndar également donc euh, euh, loolu moo nekkoon euh, cëslaayu disons suñu suñu teew fii ci suñu côté maanaam ci suñu wetu mbokk Elton yi ñi nga xam ni bi ñu gisee ñu teg li nga xam ne moom ñu tuddee taamu senegal waaw bañ nañu ba jëluñu beneen beneen beneen turu nasaraan ñu ngi ko tuddee taamu Sénégal te taamu Sénégal ñu ñëpp xam nañ ne mooy da ngay jox gëdd sa réew bala ngay dem feneen bala ngay laax jaay nga laax lekk donc bala ngay euh, commencé feneen nga bay ci sa ci sa weyu tànk loolu moo waral initiative Taamul Sénégal ndax bi lépp arrêté dañu woo acteurs yëpp hôteliers yi agence de voyage yi transporteurs yëpp ne leen nag li fi sës moo ñu góorgóorlu ba secteur bi bu mu nërmalu bi nga xamee ne état bi def na li ma li ma la fàttali sànq soixante-quinze milliards te mettre na en place également li ñu tuddee crédit hôtelier mooy pour jàppale maanaam hôteliers yi ba nga xam ne seen outil de travail maanaam li nga xam ne foofu la nit ñi di dem seen xëyukaay maanaam du du du du du yàqu. loolu bi mu amee ñu mettre en place donc Tamu Sénégal Tamu Sénégal nag du leneen lu dul ñu jël li nga xam ne mooy hôtel. li nga xam ne mooy ay excursion li nga xam ne mooy ay circuit ne nag sénégalais yi ba comme léegi dematu leen feneen na ngeen fexe yéen société yi société ak waa nguur gi ak waa ak parlement bi député yeeg ñëpp. bala ñuy jël euh, bala ñuy toog seen kër ñu fexe ñu ñëw visiter seen réew léegi nag euh, Elton ñëw fekk si ñu daal di ne man léegi d'accord naa ñëw ak yéen jàppale leen euh, ba loolu moo ñu permettre bi ñu demee ci seen base de données touché nañu lum ëpp presque deux cent deux cent mille clients wu Elton ci opération bi opération bi may nañu aussi ñu tukkiloo lu tolloog téeméer ak ak euh, téeméer ak euh, ak euh, juróom fukk famille sénégalaise yoo xam ne dañ leen permettre ñu dem visiter le Sénégal donc dañuy invité sénégalais yëpp vraiment ñu xalaat seen réew xam ne que réew bi ñu am réew bu neex a tukki la am na ay tali am na ay hôtels yoo xam ne même boo demee bitim réew da nga fay fekk hôtel yoo xam ne ay hôtel yu mucc ayib la donc vraiment loolu moo doon suñu kaddu ci bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moom lañ daje fi incha allah